ki ko laaj ba tey moo di ne koo xam ne kii da nga teewluwul sa jaamu yàlla bi nga doon def ba tax ñu may la ndigal ne la nga jàng jawharatul kamal ndax loolu koo xam ne da nga tiimoon doon def sa wazifa wala boog da nga tiimoon doon def sa wird wala da nga tiimoon da nga amoon ngant ba tiim ndax jawharatul kamal mën nga koo jàng wala déet ñu ne daal jawharatul kamal min haythu hiya laa tuqra'u walaw marratan waxida illa bi taharati almaiya duna turabiya sawaun fi lwadifati wa gayriha jawhara ci boppam ku tiim mënu koo jàng loolu mooy tontu li ku tiim mënu koo jàng donte sax benn yoon la laaj bi ci tegu moo di wirdu woowu nga xam ne wax nañ la ne moom nga war a def suba ak ngoon lan moo koy yàq ñu ne la daal li yàq julli mooy yàq wird soo ko defee te yéene wuloo sa wirdu du baax soo ci waxee wax ju bari wala nga lekk ci lekk gu ëpp wala nga naan ci naan gu ëpp wala boog yii firi njàpp benn gaar la ci wala boog nga yokk ci dara te fekk yaa ko tey wala nga wàññi ci dara te fekk yaa ko tey wala nga safaane wird wi te fekk yaa ko tey sa wird dafay daal di yàqu loolu yépp mam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu yàlla nañ ko yàlla fayal indil nañu ko ci bayt boobu ñu waxoon ci ginnaaw nee na woon wa kullu da fi sahwi waaye nag wal butlaanu fi l amdi xaasilun kadal bayaanu su fekkente ni bii da nga wàññi sa wird wala nga yokk ko wala boog nga safaane ko jiital loo xam ne bii warul woon a jiitu te fekk yaa ko tey sa wird dafay yàqu loolu mooy yi yàq wird waaye su fekkente ne bii da ngaa naan naan bu woyof wala nga lekk-lekk bu woyof ci biir wird wi kooku wàññiwul dara muxafafu shurbi wa ak muxafafu shurbi wa aklin in ara athnaahu kul watni ma qablu jara loolu la maam Cheikh Alhaj Malik wax ñu ne waaw léegi koo xam ne kii dangaa wird ci sa kurus ba noppi dema dema dem ba toog ay fan wàññiwaat sa kurus fekk ne sa kurus matul kon mu wóor la ne yow li nga wird matul sa istigfaar matul sa salaatul fatixi matul sa laa ilaha illa allah matul kooku lan mooy sa atte ñu ne su fekkente ne xam na bis yi nga xam ne moo moo bis yooyu nga xam ne kurus gi manqué la ci doon jëfandikoo xam na bis yi ñaata la daf ko war a fay il faut que mu wut geneen kurus gu mat fay la ca aju ci ay wirdu suba ak ay wirdu ngoon su fekkente ne bii nag xamul bis yi xamul kañ la jëloon kurus gi di ci wërd dañ ko sant mu indi astaghfirullah juróom benn téeméeri yoon ak ñetti peru jawharatul kamal fas yéene koo jange loolu nga xam ne daf ko yokk wala boog muy kurus goo xam ne gi dafa ëpp bu ci nekk mën naa nekk kala koy nasal mën naa juum nas lu ëpp wala boog mu juum nas lu matul wala boog am per bu ci toj bu ci nekk mën naa nekk soo xamee fan yi nga xam ne daal moom nga wird ci kurus gu matul wala mu ëpp il faut que da nga koy fay su fekkente ne bii nag xamuloo ko da ngay def astaghfirullah juróom benn téeméeri yoon teg ci ñetti peru jawharatul kamal ngir jange ko loolu loolu nag mooy kenn koo xam ne kii masalan da nga doon wazifa waaye su fekkente ne bii da nga nekk ci biir mbooloo di wazifa kurus googu sa kurus am lu ci manki ba tax mataloo nit ñi matale ah loo ca bàyyi nag imaam moo koy yenu moo xam da ngaa yokk moo xam da ngaa wàññi imaam ay yenu lépp ñu ne waaw koo xam ne kii nag da ngaa tiimoon julli ndax sa tiim boobu mën nga cee def sa wird wala bokk il fokk nga defaat beneen tiim boo xam ne ci ngay jànge sa wird mam Cheikh El Hadj Malik radiallahu anhu nee na sa wirdu julli in qara'ta bihi ala wirdika ma xarajta sa wirdi wi nga xam sa ti tiim bi nga tiim pour julli nga boole ci jàng ci sa wirdu soo ko defee defloo benn bakkaar nekki noonu itam koo xam ne kii dafa yore janaaba te nekk ci tukki kooku may nañ ko mu jàng wirdam li kulli wi janabatin musafiri qiraatul wirdi bila munakiri kadhalika sayfiyu walyamani wa ghayruhu kadha rawa tijani واستثنيا واستثنيا فاتحة الكتاب بنية الاسم بلا عتاب ولازم الدعاء بعد الورد لعل ما تصل دون الترضي li kulli bi janabatin ñeel na jëpp boroom janaba musaafiri ku di aji tukki qiraatul wirdi jàng wirdam bila munakiri ci lu dul jenn aji werante may nañ ko itam mu jàng alxisbu sayfi may nañ ko mu jàng alxisbul yamani wa gayruhu kadara wa tijani lañ ca settee nga xam ne mënoo koo jàng daal moo di fatihatul kitaabi bi niyatil ismi kooku moom nañ ko bàyyeeg seeni boroom ولازم الدعاء بعد الورد لعل ما تصل دون الطرد soo jafee sa wird ba noppi itam bul pare rek daal di jóg na nga ñaan ndax yàlla nga àgg fi nga bëgg a àgg te kenn du la dàq ñu ne waaw koo xam ne kii da nga nekk ci place boo xam ne ndax dañu wax ne jawharatul kamal soo ko dee jàng na nga ko jàng ci place boo xam ne dana xajoo juróom benn nit yow nag nga di ko jàng ci place boo xam ne nga nekk ci place boo xam ne dafa xat nekki koo xam ne dafa nekkoon ci néeg bu ndaw muy néegu xalwaam muy def wasifaam ba agsi ci jawharatul kamal ndax mën na koo jàng ci place bu xat boobu nga xam ne xajoowul juróom benn nit wala déet ñu ne ah kay mën na koo jàng waaye daal li gën a wér gën a wóor daal moo di jawharatul kamal ku ko bëgg a jàng na nga ko jàng ci place boo xam ne lu mu gàtt gàtt dana xajoo juróom benn nit loolu mooy lenn ci àtte yi nga xam ne jukki nañ ko doon ci leeral li aju ci mbirum wird naka lañ koy war a defe ban waxtu lañ ko war a def ndax mënees na koo jiital wala mëneesu koo jiital ak koo xam ne kii da nga cee juum naka nga ko war a defaree yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne danañu dégg lii mën koo jëfandikoo bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ci tegu moo di al wazifa wazifa tamit dafa bokk ci zikar yi nga xam ne dafa war ci taalu bi tijaan wazifa itam soo ko dee def nii nga koy defee اللهم إني نويت بتلاوة الوظيفة الصباحية أو الوظيفة المسائية تعظيما وإجلالا لك وابتغاء مرضاتك وقصدا لوجهك الكريم مخلصا لك من أجلك وأقول بإمدادك وعونك وحولك وقوتك وبما وهبتني من إنعامك وتوفيقك mustaciinan bik acuudu billahi min alsheytaan alrajim jàng fatixa ba mu jeex nga teg ci asta astagfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum astagfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayuumu nga jàng ko fanweer yoon soo noppee nga teg ci salaatul fatix اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم جرم فكيون لولو ليرنا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم soo ko fi bàyyee dem jàng beneen istigfaar sa wazifa du baax salaatul fatixi itam bii ci wazifa wird waxoon nañ la mën ngaa jàng salaatu ala nabi siira bu la neex waaye bu dee fii ci wazifa beneen salaatu boo def bu bokkul ak salaatul fatixi du baax noonu lañ ko waxe ci jawahirul maani su loolu paree nga teg ci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin teg ci alhaylala la ilaha illa allah téeméeri yoon su noppee nga wax sayiduna muhammadun rasulullah alayhi salaamullah benn yoon nga jàng jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar jawharatul kamal moo di allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأصفع بمزون الأرباح المالئة البرق الأصفع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه لولو موي جوهرة الكمال nga jàng ko ba muy fukki yoon ak ñaar soo ca noppee nga wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نون لني وصفا سبحانه كن نيان ñaan googu ñu jàngoon sax ci bandu ci wet googu ginnaaw bi ñu waxee ni ñuy wirde ba noppi ñaan googu ngay jàng mooy ñaan wird mooy ñaan wasif léegi kon ñu laaj yan waxtu lañu war a wasif ñu ne wasifa danañ ko def benn ñu def ko ci suba wala ñu def ko ci ngoon waaye nag soo boolee ñaari waxtu yépp def ko fa tabarakallahu moo gën moo tax maam cheikh alxaaji malik wax ci faakihatu tullaab ne wa waqtuha almasa aw alsabaaxu jamcuhuma fa xasanun rabaaxu waxtu wasifa daal mooy nga def ko benn ci ngoon wala ci suba aw la indi te baatu aw xarfu ataf la boo xam ne la muy jëriñ moo di al ixtiyaar benn nga def ko ci suba wala nga def ko ci ngoon waaye nag jamcuhuma soo leen boolee ñoom ñaar def ko ci suba ngoon fa xasan rabaaxu def nga lu rafet def nga jëf joo xam ne bii jëf ju tonowu la ñun ñi nga xam ne nag ñoo aju ci moom te moom mu ko daan def suba ngoon tàmbalee ko ca njarne nga xam ne suñ masaana julli timis ba noppi nit ñi dañuy dajaloo di waxtaan waxtaanu àdduna mu daal di saxal bu ñu jullee timis ba noppi rek daal di def mbalaanu wasifa lal ko jàng wasifa kon ñun ñi aju ci moom dañuy wasifa suba di wasifa ngoon mu mel na nag waxtu wasifa itam warees na koo laaj xam kañ lañ ko war a def ñu ne waxtu wiñ joxe woon ne mooy waxtu wird mooy waxtu wasifa mooy waxtu wasifa ñoo bokk ci waxtu ñoo bokk waxtu wuñ ko war a def koo xam ne kii itam nag da nga sàmmoontewul waxtu woowu ñu ko tëral ñu ko tëralal ba mu faat la ndax war nga koo fay wala waruloo ko fay ñu ne kat wasifa tuqda in faatatka alwirdi abadan ala mamarri dahri walaw marratan waxida la ñu waxoon ci wird képp ku mu faat da nga koo war a fay wasifa itam ku mu faat da nga koo war a fay noonu la ko mam cheikh alxaaji malik indee ci faakihatu tullaab ñu ne waaw lan mooy atteb koo xam ne kii da ngaa juum ci sa wasifa dolli ci dara wala nga juum wàññi ci dara ñu ne kooku kat wala boog koo xam ne kii dafay sikki sàkk ndax dafa yokk wala dafa wàññi la ñu waxoon ca atteb wird mooy li ñu tëral ci àtte bosif koo xam ne kii da ngaa sikki sàkk da ngay yokk ndax da ngaa yokk wala da ngaa wàññi da ngay jàpp la gën a wóor koo xam ne kii wóor na na da ngaa wàññi na nga indi la nga wàññi soo paree nag nga def astaghfirullah téeméeri yoon fas yéene koo jange loolu nga def loolu mooy atte bi waaw koo xam ne kii da ngaa safaane sa wazifa dañ la waxoon na nga tàmbulee ci astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum yow nga dem juum tàmbulee salaatul fatih soo ko defee salaatul fatih boobu dañ koy wàcc il faut nga tàmbulee istighfar indi ko ba noppi teg ci salaatul fatih teg ci haylala teg ci jawharatul kamal ni ñu ko defee tartiib soo paree nga indi astaghfirullah téeméeri yoon astaghfirullah téeméeri yoon ci ni ñu ko waxe woon kon daal boo juumee ci wazifa ni nga koy defare moo di na ngay defare sa wirdu boo ci juumee loolu ñoom ñoo ko bokk loolu nag mooy atteb koo xam ne kii dafay jàng wazifa moom rek waaye koo xam ne kii da ngaa nekk ci biir mbooloo di ko jàng boo ca defee benn njuumte sa ilimaan moo koy yenu sa ilimaan moo koy yenu waaw ñu ne koo xam ne kii da nga doon jàng sa wird wala nga doon jàng sa wazifa yàlla def ñu taxawal julli lan mooy sa àtte ñu ne buñ taxawalee julli na nga daldi jóg ci saase ànd ak mbooloo mi daldi julli ndax julli mooy jaamu yàlla gi gën a màgg kenn du ko tëkkaleeg leneen waaye nag boo sëlmalee rek ca saase na nga daldi jokk sa wazifa fa nga yemoon balaa ngay def benn xeetu jaamu yàlla bu ci tegu moo xam baaqiyaatu saalihaat la moo xam beneen zikr bu ñuy def la moo tax maam Cheikh Alxaaji Malik wax ne kad salaatu wabni fi isri salaam min qablu ma uhida min baadi salaam min qabli ma uhida min baadi salaam su fekkente ne bi da ngay wérdu wala ngay wasifa julli gaar na nga jóg julli soo jullee ba noppi nag sooy noppi rek wap ni na nga jokk fii isri salaam ci ginnaaw boo salmalee min qabli ma uhida min baadi salaam lu njëkk ngay indi la nga xam ne bii dañ ko miinoon ci ginnaaw boo salmalee te mooy def sa baqiyaatu saalihat loolu mooy atteb koo xam ne dafa tàmbali woon di jàng wasifaam wala muy jàng wirdam waxtu julli jot ñu ne waaw koo xam ne kii dañ laa raw ci wasifa da nga ñëw fekk mbooloo mi tàmbali ba raw la nooy def ñu ne kooku daal bu ñëwee liñ ko sant moo di fu mu fekk mbooloo mi rek na tàmbali ànd ak ñoom koo xam ne kii da nga ñëw fekk mbooloo mi jàng astaghfirullah ba noppi astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fanweeri yoon mu rëcc la jawharatul kama nga dikk fekk ñu nekk ci salaatul fatihi jàng ci masalan fukki per wala ñaar fukki per wala fanweeri per nga dikk fa nga fekk rek na nga fa tàmbulee masalan ñëw nga fekk astaghfirullah rëcc la salaatul fatihi ñaar fukki per ak juróom rëcc na la nga dikk fekk ñu ne sa ñaar fukk ak juróom nga ànd ak ñoom jàng ko bu ñu jàng laa ilaha illallah nga ànd ak ñoom jàng ko bu ñu jàngee jawharatul kamal nga ànd ak ñoom jàng ko suñu noppee nga ànd ak ñoom jàng inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba ci subhaana balaa ñuy agsi ci wasallimu taslima nga noppi daal di dellu nag fay sa astaghfirullah alazima bañ la rawe woon fanweer ya indi itam ñaar fukki peru salaatul fatihi ak juróom yi nga xam ne daf la faatoon soo ko dee indi nag suñuy pare rek da ngay daal di jokk yow doo indi aoudu billahi min alsheytan irrajim doo indi bismillahi irrahmani irrahim comme ni ko moom cheikh alhaaji malik waxee ci fakihatu tullaab noonu loolu mooy atteb koo xam ne kii da nga ñëw fekk mbooloo mi raw la noonu ngay dugge ci wasifa wi noonu itam ngay faye wax nañ ne boo dee fay doo jàng fatihatul kitab doo jàng basmala doo jàng aoudu billahi min alsheytan irrajim ndax fatiha boobu bokkul ci ponki wasifa dañ koo sopp loolu moom cheikh alxaaji malik indi na ko wala tuawidan wala tubasmila yaa ayuha almasbuqu niltal amala loolu mooy atte bi ñu ne nag ki nga xam ne dafay jàng wazifa waxoon nañ ko ci ginnaaw bokk na ci charte yi ñu ko tëralal moo di na laab-laab gu mat sëkk moo xam laabu ndox la moo xam ndox nga laabe wala boog boo amee ngant nga tiim waaye nag boo tiimee ba agsi ba ci jawharatul kamal doo ko mën a jàng jawhara moom tahaara ma iya rek mooy tax taalibe bi mën koo jàng nooy def nag da nga koy wottee salaatul fatixi ñaar fukki per mu taxaw taxawaayu jawharatul kamal loolu moo jëm ci attee wasifa mu mel ne am na loo xam ne dañ ko fàtte woon ci bi ñuy leeral wird waaye nag danañ ko leeral fii moo di koo xam ne da nga doon jàng waroon nañ ko leeral lu njëkk ñuy tàmb tàmbali ci wasifa waaye fàtte mooman ku nekk koo xam ne kii da nga doon jàng sa wirdu suba ci guddi waaye nga fàttaliku ne yow kat sa wirdu ngoon jotoo ko woon a jàng masalan dama nekk ci bisu ajjuma julli tàkkusaan ba noppi waroon a jàng sama wirdu ngoon jànguma ko jànguma ko jànguma ko ba ajjuma ca guddi ma bëgg a jiital nag sama wirdu samedi ci guddi gi bi ma demee ba ci biir ma fàttaliku ne man mii kat jànguma woon sama wirdu ngoon rawatina nag su fekkente ne bii waxtu wi dem na bala ca des bareetul kooku sama wirdu suba woowu dama koy dog te indi sama wirdu ngoon ba noppi ndaw waxtu woowu waxtu wirdu ngoon la su fekkente ne bi da koo dog nag jàng wirdu ngoonam indi ko ba noppi bëgg a jàngaat wirdu suba bi fekk waxtu wi xaj na il faut que nga tàmbaliwaat ko doo mën a jokk loolu mooy atte bi koo xam ne kii nag da nga tàmbali woon di jàng sa wirdu suba lu jiitu julleeg suba di ñëw nga fàttaliku ne yow mii kat jànguloo woon sa wirdu ngoon kooku doo ko dog da nga koy mottali soo paree nga fay sa wirdu ngoon ndax foofu tartib bi kenn sartonte wu ko ci koo xam ne kii da ngaa julli suba ju suba ak samedi ba commencé def sa wirdu suba fàttaliku ne sa wirdoo ngoonu ajjuma jotoo ko woon a def léegi waxtoom wéy na ndax waxoon nañ leen ne waxtoom mi ngi tàmbulee boo jullee tàkkusaan ba ba fajar ji xar su waxtu wi xasee ba jeex rek xadaa lay tudd kon jarul nga koy dog da ngay àggale sa wasifa sa wirdu suba boo noppee nga fay sa wirdoo ngoon ñu ne waaw koo xam ne kii dafa tàmbali doon jàng wirdu ngoonam ginnaaw bi mu jullee tàkkusaan ba noppi fàttaliku ne jàngul wirdu subaam lu muy def ñu ne kooku daf koy dog indi wirdu suba ba noppi door a indi wirdu ngoon ndax toftale bi foofu charte la fi ndax ñoo bokk waxtu il faut que mu def ko loolu lenn nag ci àtte yi nga xam ne waroon nañ ko indi ca ba ñuy leeral wirdu waaye dañ ko fàtte woon ba ñëw fii door ko leeral ñu ne waaw ñu dellu si léegi ci wasifa koo xam ne kii dafay wasifa nekk ci kaw daabbaam naka lay def ñu ne kat koo xam ne kii dafay tukki may nañ ko mu wasifa ci kaw dabba ja mu war nañ ko maye itam mu wird ci kaw dabba ja mu war waaye bu dee wasifa ba agsi ci jawharatul kamal du ko mën a jàng te fekk mi ngi ci kaw dabba ji il faut que dafay wàcc jàng ko te fekk muy dox sartu ñaareel bi itam moo di na fekk suuf samuy dox laab bu agsee ba ci juróom-ñaareelu per bi itam il faut que mu toog ci suuf mottali li ci des te fekk dafa toog allahuma lu dul nag mu am ngant loo xam ne dafa ragal ne bu fi toogee lor mën na ko cee mën na ko fee fekk kon may nañ ko mu dox jàng ko waaye daal jawharatul kamal moom kenn du ko jàng mukk ci kaw dàbb moo tax ba boo nekkee ci oto wala nga nekk ci avion wala nga nekk ci bato boo ci accès doo ko mën a jàng su fekkente ne bi mën loo wàcc doo ko mën a jàng da nga koy wattee salaatul fatihi ñaar fukki per nekk ñu ko waxe woon wasifa itam buñ ko dee def sopp nañu buñ agsee ba ci jawharatul kamal rawate na nag buñ agsee ba ci juróom ñaareelu per bi ñu tàllal mbalaan moo xam ne mbalaan mu laab lay nekk bu ñu jàngee ba agsi ci fukkeelu per bi ak ñaar ñépp àndandoo yëkkati seeni loxo ngir ñaan suñu paree ñu raay ci seen kanam loolu bëgg nañ ku koy def ci wasif nekk noonu wird nekk noonu itam haylala bi ñuy def ngoonu aljuma suñu wasifaa ba noppi itam bëgg nañ nga saafoon teeg ñi nekk ci sa ndeyjoor ak ñi nekk ci sa càmmooñ ak képp koo xam ne mën nga ko nuyu bëgg nañu itam buñ dee wasifa wala ñuy wird taalibe bu nekk yore kurusam ndax loolu dana ko dimbale ci mu mën a bat mën a takk li nga xam ne moom lay def loolu lennat la ci li nga xam ne ay attele yu aju ci wird aju ci wasifa ñu ne waaw koo xam ne kii dafa nekkoon di jàng wirdam mbooloo mi ñoom daal di tàmbali di jàng wasifa wala hayla la naka lay def ñu ne kooku kat laa yaqta'u wirdahu du dog wirdam lu dul mu xam ne nag su ko deful surtout bu dee ci zikrul hayla la te ginnaaw ci ajjuma su ko deful mbir mi mën na koo faat te du ko mën a dab kon na ko dog dem fekki mbooloo mi su ko defee ba noppi door a fay door a indi wirdam su fekkente ne bii nag wóor na ko ne affaire bi du ko raw mën naa àggale bu toogee di àggale mbooloo mi di jàng ci kaw loolu nar koo indi jax-jaxal waa nar ko yàqal liggéeyam na jóg dem ci beneen place àggale fa wirdam ba noppi door a ñëw ànd ak mbooloo mi waaye na fexee ba buy génn itam bu mu dox ci foo xam ne fii sobe dafa nekk loolu itam lennat la ci atte yi nga xam ne wala son na ko leeral wasifa itam suñ ko dee def bëgg nañu mbokk yi buñ ko dee def na baat yi ànd te buñ ko ruube te itam nañ ko biral su fekkente ne mbooloo lañu waxoon nañ ne koo xam ne kii dafa war wala muy dox may nañ ko mu jàng wasifa waaye nag na fekk itam bu agsee ci jawharatul kamal na wàcc def ko bu agsee ci juróom-ñaareelu per bi na toog ci suuf ba mu àgg mu door a mën a continuer lu dul loolu du mën a baax moo tax ba Mamadou nee na laa taqra an jawharatan bi gayri ma taharatin maiyatin faltaalama wa tahirun yamshi bi turbin tahiri yaqra'uha bila xilaafin zahiri koo xam ne kii da ngaa laab di dox ci suuf su laab may ne la nga jàng jawharatul kamal ci dudul benn werante waaye nag boo agsee ba ci juróom-ñaareelu per bi na nga toog loolu mooy li ñu santaane kon loolu mbokk yi moo aju ci wasifa li ci tegu moo di xadratul jumua kooku moom itam taalibe bi war na koo def ginnaaw boo defee auzu billahi min alsheytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim jàng fatiha ba mu àgg nga def astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum ñetti yoon salaatul fatihi ñetti yoon tëje ko inna allaha wa malaikatahu ba mu àgg nga def baatu laa ilaha illa allah junni wala boog junni ak ñaar téeméer wala boog junni ak ñeenti téeméer wala boog junni ak juróom benn téeméer gën jaa néew du manqué junni lu mu bari bari du ëpp junni ak juróom benn téeméer am na nag ñoo xam ne suñu paree dañ cey boole baatu allah allah allah juróom benn téeméer yoon noonu la ñuy defee xadratul jumaa dëkk bu ñu koy defee itam te fekk taalube bi ay mbokki tijaanam nekk fa dañoo war a dajaloo pour def ko su fekkente ne amul mu def ko moom rek loolu ñu wax sax ci adat boobu junneeg wala junni ak ñaar téeméer wala junneeg ñeenti téeméer wala boog junni ak juróom benn téeméer na fekk boobu mu dee kenn ak baatu allah allah juróom benn yoon waaye bu dee mbooloo mën nañ koo def ci loo xamante ne bii sax ajuwul ci benn lim loolu mën na nekk soo ko dee tëj nag nga tëjee ko audu billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim teg ca fatiha salaatul fatixi ñetti yoon inna allah wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moom tamit nga def ko ba mu àgg suñ paree ñu ñaan timis dal di jot ñu war a kaste tëj nag dossier bi fekk yow yaa ngi ko tëje tudd yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak def lu baax sa page boobu nekk page bu rafet war a yéeg ca kaw yal nañ yàlla dimbale bañ mën koo joxe noonu du ñàkk nag xëy na sax lenn lu ñu rëcc waaye lii daal ci gàttal mooy li nga xam ne moo aju ci zikkar yi nga xam ne dafa war ci taalube bi muy wird di wazifa di xadratul jumaa ñu fas yéenee leeral ci band bii di ñëw insha allahu ngëneel yi nga xamante ni bii nag moom la tariqa bi lambe ak teggin yi nga xam ne képp kuy tudd yàlla moom nga war a àndal yàlla nañ ci yàlla dimbulee wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin waxtaan yii ñi ngi ko defee ci keppaaru jag saaw sàkku